aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaaniirahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare noo ngi ci ñeen fukkeelu jataay ci téereb Xalimag Leer noo ngi ci wet gi nga xam ne ci wàllu sant la jëm tey nag ñuy tàmbali xasida ak xadd karam naa bokk na ci xasiday sant yi Sëriñ Tuubaa def te bind ko ci jamonoy tukki bi maanaam ci géej gi ay baytam toll na ci juróom-ñett fukk ak juróom-benn 86. xasida la koo xam ne mi ngi ko tënke aayab wala xadd karram naa bani aadama wa xamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum wa razaqnaahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ala moom la ko sunu borom tënke moom ko moom bi tënke aay jooju sunu day wax ci aay bi teral gi mu teral doomu aadama tàggatal ko géej gi ak jéeri ji maanaam mooy furul géej suuf si defal ko wërsëg wu teey def doomu aadama mu gën ci mbindeef yi aay yu mel nii boo ko bu ko sëriñ bi jële di tënk xasit ak cant day wane rek ne nit li ko yàlla defal dafa rëy mu war a delloo njukkal yàlla te sant ko ci xéewalam yi nga xam ne sunu borom defal na ko mu di ko jaamoo te bañ ko cee mooy Sëriñ Tuubaa moom daa bàyyi xel moom ci lépp xaside gu muy def sax aaya bi mu koy tënkee day méngook la nga xam ne mooy mooy ak na meelam xaside gi sëriñ bi mi ngi ko taalif ci weeru gàmmu wax na ci ñaari bayit yu njëkk yi ne jëmee naa sama jëmm ci yàlla mi nga xam ne ay teraangaam lu fees la ci weeru ki nga xam ne yar na ma ci géej gi maanaam weeru yonent bi sallallahu alayhi wa lay wax eh, mooy weeru kon mooy weeru gàmm mu ne sama kent ñeel na yàlla ci weeru gàmm bii ci sama tàmbali li nga xam ne moom la ma sunu borom tànnal ngir ma jege ko ko wajjahtu wajhi liman takrimuhu baana fi shahri mawlidi man fil bahri rabbana lillahi shukriya fi shahri rabici huna ala ibtidaa illadi lixtaara qurbaana li wax ne moom la tàmbali ngir jege ko yàlla xëy na mu jublu ci cant gi nga xam ne moom la fas yéene sant sun borom te muy wéy ba fàww Euh, lii firndeel ne ci jamonoy géej la ko sëriñ Tuubaa def bokk na ci wax gi mu wax ne yow sunu borom yàlla na nga def sama dellu ci sama nit mu doon sunu texe te nga fegal nu dugg sawara jaala rujuu'i ilaa qawmi saadatana wal takfina yawma jamil xalqi niiraana bayit wi day wane bu baax yéen ma ne sëriñ Tuubaa ak yéeneem ju yaatu ci aw nitam ndax moom rekk moo wéet ci barab ay at yu bari lool di daj yu nekk di fa jaamu boroomam di fa liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa ci anam gu nekk ba noppi nag muy ñaan sunu boroom ak delloom ci aw nitam mu doon seenug texe te ñu mucc ci sawara loolu li ñuy wax yéwén dëgg te yaatu mbir mënu ko weer day dëppoog rekk la Cheikh Sidiya Baba waxoon ne Sëriñ Tuubaa xéewal la gu sunu borom jagleel mboole mi defi kon noo ngi foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.